jërë ngeen jëf mbokk yi ñu teewlu ci net bi TV Sénégal ginnaaw wu ñu leen jaajëfale te amati mbégte di ànd ak yéen ci jotaayu xibaar rek ponk ki ñu war a waxtaanee euh, bi ci jiitu rek dañu koy euh, dal di door manifestation rappeurs tey société civile bi ak activiste yi nga xam ne jot nañu rek dal di euh, daje tey amal ab manifestation lu ñeel libération nit dof bi ñu jàpp ne cinq chefs d'accusation yi ñu teg ci am ndoddam du lenn lu dul ay sos ak i tappale te ñi ko def du ñu ak nguuram lu ni mel nag tax na tey ñu daal di yëkkati kàddu ñu fay gis ay xar kanam yoo xam ne saa su nekk ñoom rek la gis ci uh, benn combat bi maanaam lu ñeel ak ak yelleefu doomu aadama uh, ku ci mel ni Abdou Karim Gueye uh, xurum xaq ki nga xam ne moom moo di Malal Talla. Fata rappeur Fata ak ki nga xamante ne ni moom moo di euh, Simon ñoom ñëpp dal nañ fay teew caat euh, ñoom ñëpp benn kàddu bi la ñu wax libéré euh, nit doof lu ni mel nag dafay wane ne que engagement bi ñu am ñoom ñëpp benn la nee nañu nag ki nga xam ne moom moo di nit doof ay combat yu noble la rek dal di am mo moo di défendre peuple am waaye itam lu ñeel troisième mandat bu président Macky Sall Abdou Karim Gueye xurum xaq jot na ca rek dal di addu ne xam nañu Macky Sall li ko ñeel benn arme rek la am moom moo di jàpp ràpp tëj ci kaso gi te ñu kaso dem nañ ba démystifier kaso ndax ndaxte ragal ñàkk a ragal kaso moo tax chaque jour ci benn combat bi la ñu leen di gis ñuy xeexal seen askan te bu yaakaaree ne dana am troisième mandat wala mu def fi troisième candidature mu ngi nax boppam te jàpp na ne jeunesse bi fi mu ne ñëpp dañoo engagé wu rek ngir jàmmaarloo ki nga xam ne moom moo di le président au Macky Sall ci manifestation ba ñuy des ndax gis nañu di Ousmane Sonko mi nga xam ne jotoon na ko rek daal di wax na mu ko waxee woon na la ko defee daal dina fay euh, teew mbooloo ma daal di koy teertu waaye ba Ousmane Sonko ñëwee discours ya dafa rek daal di changé ñëpp dañoo mel ni sax ku fàtte la leen fa yóbbu Ousmane Sonko président 2024 rek ngay euh, dégg balaa suñu xol bee sedd Sonko dañu ko jiital mu jëm palais moom moo nekk discours jeunesse bi nga xam ne daal dinañuy topp ki nga xam ne moom moo di Ousmane euh, Sonko Ousmane Sonko nag moom itam dafa bokk ci combat bi nga xamante ne moom la ay rapport doon amal ni ki tey moom moo di libération wu ki nga xam ne moom moo di euh, nit doof waaye euh, ca débat ba sax jot nañ fa tuddaale ñeneen ñoo xamante ne ni duñu ay rapport euh, te jàpp nañu leen rapport ci kaso gi ñu di ay patriote ku ci mel ni Fadilou Keita Hannibal Djim ak yeneen ak ñeneen ñi nga xam ne jamono ji ñi ngi ci kaso gi mu mel ni moom combat bi nga xam ne ci la nekk euh, dara xama nu ko ko rek daal di teree def ay gestam nag wane na ko ngitul Pastef euh, ginnaaw bu mu jugee ca Mbàkke Kolda tey ma nga woon ca Géejawaay ngir dem seeti naataangoom bi di maire bu Géejawaay di Ahmed dara comme ni mu ko defee woon ak maire bu Parcelles asseni di Jamil Sané def ko itam ak maire bu Patte d'Oie noonu rek la koy dal di euh, defee loolu moom moo nekk bëgg-bëggam ci ay kàddoom la ñu koy xamee Ousmane Sonko def na fab discours ginnaaw bu mu jàkkaarloog Ahmed Aïdara engagement bu mag a mag la ñu gis ci moom ci kanamu patriote bi nga xam ne ah, fi ne ay ndaw yu bare bari topp nañu ci ginnaaw mu mel ni fi ne la mu dëkkmal moom moo di eh, gën cee dem ba jeex dara du ko teree rek daal di dëkkmal yoonam xoqatal ak tiital ba ci sax ñu jàpp ay ndaw loolu lépp nekk na loo xam ne dañu koo bëgg rek daal di intimider waaye du tax benn yoon mu dakkal voix bi nga xam ne moom la jël eh, te itam eh, dal di nay gën a chargé le président Macky ak nguuram mënuñoo gis discours Ousmane Sonko ba mu jeex te duutul baaraamu tuuma président ci doxalinu réew mi ginnaaw Ousmane Sonko a Guy Marius Sagna moom itam yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci le président Macky Sall chargé ko ba mu rek dal di dis gan ah, bokk na ci arrestation yi nga xam ne jot naa rek am ca manifestation ba ci Mbacké ndaw yi nga xam ne jot nañ leen fa rek dal teg loxo ba mujjee leen defeere te am ci ñoom ay mineur ak ñenn ci ñoo xam ne ay taalibe lañu ah, Guy Marius Sagna moom jàpp na ne lu waral coow leeg lépp du lenn lu dul président Macky Sall bu bëgg intimider Ousmane Sonko ñooñam muy jàpp rek di tëj ci kaso gi mu ne nag tey la ñu gën a am engagement ak détermination moom président Macky Sall mënu leen a rek daal di xoqatal ba ñu bàyyi combat bi ñu nekk wala mu di leen jéem a teg benn pression mu ne nag Sénégal fi ne euh, boo waxee rek lu jëm ci Ousmane Sonko euh, sa kër moom moo di euh, kaso te lu ni mel dafa war a rek daal di dakk ci injustice bi nga xamante ne ni ko rek daal di gis maanaam justice à deux vitesses bi nga xam ne bu dee da ngaa fare ci wetu Macky Sall lu la neex wax waaye bu dee ci wetu Sonko virgule boo ko waxee rek ñu ne la ràpp ci kaso gi tëj ñu daal di addu wax ci leneen Ousmane Sonko lëkk yem ak fukki fan ak juróom ci weeru février dana doon ba sëm ca tribunal grande instance bu ndakaaru li ko waral mu di procès bi dox digganteem ak ministre du tourisme di Mame Mbaye Niang mi fi nekkoon ministre de la jeunesse euh, ci jamono ji nga xamante ne nii euh, ci la ñu koy euh, tuumaat lu ñeel rapport Prodac boobu nga xam ne di nañu koy fësal ci vingt neuf milliards yooyu nga xam ne moom lay toppee Ousmane Sonko ci diffamation ba koy laaj xaalis bu takkoo takku le 2 février gi weesu lañ leen waroon atte Ousmane Sonko demul woon ci yebal ay avocat am daal di plaider eh, ñaan ngir ñu renvoyer li nga xam ne moom moo di procès bi nañu ko sàkko woon noonu lañ leen kon nangulee ëllëg Ousmane Sonko dana wuy ji am déet loolu ab laaj la bu ñu samp bu wujjee lan moo fa war a xew wala lan moo nekk ëllëgu Ousmane Sonko ginnaaw gis nañu ñu bare bari ci ay euh, nit yu seen xam-xam màcc jëm ci wàllum euh, justice xam le rek ne Ousmane Sonko bu fekkee dossier bi nga xamante ne nii moom moo di rapport bi muy toppee Mame Mbaye Niang ñaari possibilité yëpp euh, bu ñu moytuwul yoon dana rek daal di tegu ci kawam bu fekkee rapport bu andi na kooku signature yoon mën naa dal ci kawam ndaxte euh, bu boobaa document yooyu ay ce des documents administratifs yoo xamante ne ni amul woon signature dana nekk loo xamante ne ne dépôt et usage de eau foo dana ci am yoon bu fekkee ne que andiwu rapport ba Mame Mbaye dana ko toppee li nga xam te ni moom moo di diffamation te ñaar yooyu yëpp bu mu ci mënti doon baaxul ci njiitul Pastef li de ba tax sax moom fi ne nii euh, dal dinay euh, wane ni que euh, dana rek wuy ji waxul ñu dégg waaye position bi nga xam ne ci la taxawee ba ci tey ci ngoon ak yi nga xam ne jot naa rekk dem ca manifestation bi nga xam ni ña ngi koy amal ngir libération yu rappeurs yi ku ci mel ni nit dof sénégalais bi doon wuyoo ci turu Mouhamed te ñu fàttoon ko ci Allemagne euh, ci août 2022 ginnaaw enquête ba fi mu toll nii tey wane na ne jot nañ caa rek daal di inculpé juróom ci ay takk der yoo xam ne euh, jàpp nañu ne ci bés boobu euh, seen loxo génnul ci likofat ba tax na rek yoon daal di def liggéeyam fi ne juróom ci ay policier Allemagne yoo allemande yoo xam ne yoon mi ngi ci seen kaw ngir daal di càmbar seen po dossier ndax jàpp nañu ne sénégalais bi nga xam ne moom moo di Mouhamed te mu euh, doon révolté wu noonu la ko xamle ci kaw takk der yi ci bi nga xam ne ci la intervention bi doon am demoon ba menacé leen euh, policiers yi lañu la ñu waroon moom moo euh, encadré xale bi ba noppi daal di koy euh, teg ci yoon waaye lafa am ba tax bakkan daal di cay root yooyu yëpp nekk na ay enquêtes yoo xam ne daal nañ ko ci amal euh, ci lu jaaru yoon ba fi ne nii ñoom ñëpp euh, ñu ngi ci ay loxoy justice ñu daal di addu wax ci leneen mu di lu ya ci mbirum Djadia di sénégalais ba ñu faat ca Abidjan ca Côte d'Ivoire moom Djadia na nag ginnaaw enquête baak la mu jot daal di wane ba ñu ko fekkee ci appartement am deretam wër ko ñu daal di koy jamate enquête bi li mu jot rek daal di wane ci lu njëkk moom moo di eh, ñiy jàmm eh, jajaatal fi ne ñu ngi leen di wër waaye eh, bu ñu sukkandikoo ci dëkkandoo mbéeg la mu jota rek daal di xamle ci guddi gi mbir mi xew moom jajaatal dafa organiser woon ab soirée ca biir appartement am te soirée a ñi nuy tuddee borom ñaari tur yi te mu bokk ca boobu lépp kuréel ñoo fa nekkoon di amal boobu lépp soirée ba soirée ba jeexee dégg na bruit bu atroce boo xam ne dafa rek daal di ànd ak musique euh, ñi ñe di yooxaloo ci ëllëg sa taximan bi nga xam ne moom moo ko tàmmoon di jël si euh, ba mu ñëwee fëgg ba sonn gisu ko ñu daal di rek def seen i pexe euh, moom ak dëkkandoo boobu amuñu lenn loo xam ne rek luy wane na la moom jajaataan mu ngi ci biir ca la ñu daal di alerter li nga xam ne moom moo di police ñu daal di ñëw fekk kooku yaramu neen waaye itam deretam daal di koy wër fi ne nag ci enquête boobu la ñu nekk ngir mën a xam rek bakkan moo rek daal di faat sénégalais bi di Djedia moom Djedia Tall bu ñu fàttalikoo sax yoon jotoon na ko rek dal di teg loxo ci mbirum Iba Thiam ci atum 2020 ginnaaw jamonoy couvre-feu gi nga xam ne ci lañ leen doon tere ñu génn moom ak doomu dem ci yàlla Ahmed Amar wi di Dame Amar ci Iba Thiam overdose gi nga xam ne jotoon na ko rek daal di am ci lañu ko tegee woon loxo ñu jeexale xibaar yi ak père Ngol Ngol bu 2STV yi kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko te mu mujjee rek nekk bomb waay tam bës ñenn ñi jàpp ne rek li mu wax waru ko wax CNRA dafa war rek daal di amal am mise en demeure wala sax procureur bi daal di auto saisiru ndax yaa ngi koy dégg ci ab émission muy wax ne nañu rey Ousmane Sonko bennum nit bu bëgg a taal Sénégal faat ko wàññiwul dara ci Sénégal ngir jàmm daal di dellu si waat ci réew mi di Sénégal ginnaaw loolu sax patriote yaa ngi koy menacé moom père wax ne da kaa war a jugul ci di wax ay jëya wala loo xam ne dafay taalum réew te bu fekkoon ne euh, keneen euh, ku fare euh, ci wetu Ousmane Sonko ba léegi moom moo wax wax ji yoon daal dinay tegu ci kawam ñenn ñi jàpp ne sax waa 2STV itam am nañ ci part de responsabilité ndax bu ñu demee ba télé bu toll nii kilifa di fa toog di yëkkati yenn kàddu yu ñaaw yoo xamante ne ni rek mën naa daal di indi fitna ci euh, réew mi mbokk yi xaritu ñu doon teewlu ci net bi TV Sénégal ñi ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje ëllëg incha allah ci beneen jataayu xibaar jaa ngeen jëf ñu fanaan ak jaam